waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di tàmbalee nuyoo bi ci suñ kilifa sëñ Babacar Mbuub mi toog kenn ku ne xam na ni euh, sama wëlëre la wëlëre bu yàgg parce que ba ñu xamante xamuñu woon ni fiis dana am ba ñu xamante xamuñu woon ni formation dana am xamuñu woon ni arène bi sécurité dana exister yàgg na di ko teg aussi ci loxo Ousmane Diouf wax na ko moom aussi je pense que cosaan moo ñu boole euh, ñoo bokk fu ñu dëkk muy njaareem di nuyu aussi Matar mi nga xamante ni nii liñ fi wax mooy formateur bi donc xam-xam bi nekk ci yéen moom moo leen koy def ñu koy nuyu di ko remercier di ko féliciter ci loolu nga xamante ni def na ko di nuyu aussi Bamba vraiment mon frère Bamba mbub ci initiative yi muy jël parce que kenn ku nekk xam na ni jël initiative yombul rawatina nag nga boole initiative yu bari di ko jëlandoo nga créer FIS liggéey ci liggéey bi nga ci liggéey muy liggéey bu rafet à travers tout le Sénégal ñu nga ñëwaat créer entreprise R&B Security pour gën a sortir la dimension insertion kon aussi yow ñu ngi lay nuyu di la féliciter ci loolu di nuyu aussi collègues yi fi nekk yëpp ci direction de l'emploi di liggéeyandoog ñun di leen nuyu yéen ñi nga xamante ne nii tey yaakaar na ni lu di njaaga yéenay njaag yéen yéen a waral euh, ndaje bi nii ñu organiser tey fii au niveau de Diamniadio donc ci ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion donc li waral ñu daje nag mooy depuis biñ créé association FILS ba léegi euh, FILS dafa nekkoon ci dynamique gu formation wax nañ ko donc mu ñu former lu mat trois 300 jeunes lutteur pour que ñu mën a am métier am seen diplôme am compétence yoo xamante ni tey bu ñu génnoon réew mi sax fu ñu dem dinañ fa mën a liggéey parce que compétence bi ñu am dinañ ko mën a jariñoo muy 300. ginnaaw ba mu leen formé ba pare ñun ñi nga xamante ni ñoo yore direction de l'emploi yore wàllu emploi ñu ne ko kon c'est bien parce que boo formé 300 jeunes yoo xamante ni formation bi mujjul fenn aussi amul sens ki nga formé da nga war a xool yan pexe ngay teg. pour man koo insérer donc pour nga mën koo insérer il faut nga teg ay mécanisme ci loolu la créer entreprise boobu noonu muy RNB sécurité bi mu ko créer nag ma ne ko comme léegi créer nga sa entreprise formé ay nit ñun mën nañoo intervenir en tant que direction de l'emploi ci mission yi ñu jox nga xamante ni suñu ministre moom la ñu jox le ministre Dame Diop moom la ko président de la république jox ci attribution yi mu koy jox au de l'emploi ci loolu mën nañoo xool naka lañ lay mën a accompagner ci li fi nekk comme dispositif muy mécanisme yoo xamante ni mën nañ ci ànd liggéey ci loolu lañ ko proposé la convention nationale état employeur pour la promotion de l'emploi des jeunes mooy convention bi nga xamante ni nii tey direction de l'emploi signé ne ko ak entreprise RNB sécurité convention boobu nag dañ ciy profité pour remercier le président de la république son excellence le président de la république Macky Sall di ci remercier le ministre Dame Diop moom mi nga xamante ni nii moo ci dox wax ci de telle sorte que bi ñuy dérouler le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et pour l'emploi des jeunes mu fexe ba la convention état employeur bi nekkoon un milliard ñu yóbbu ko ba 15 milliards te loolu kenn ku ne xam na ni yombul donc kon yaakaar nañ ni engagement am ak dynamisme ak pastéefam moo tax le président de la république yóbbu ko foofu dugal ko ci programme d'urgence bi yéen aussi ngeen nekk ay jeunes sénégalais parce que ñun xooluñu jeune sénégalais bi jàng ba am master jeune sénégalais bi am diplôme ak jeune sénégalais bi nga xamante ni am na titre de qualification am métier di liggéey ñoom ñëpp ay jeune sénégalais lañ ay comme ñooñu am na liggéey buñ ci jot liggéey ci at mi ak at yu weesu parce que tey boo xoolee convention état employeur inséré nañ plus de douze mille personnes mais ñu ne lan moo tax ñi nga xamante ni nii ay lutteurs lañ yor seen métier léegi ñoom ñëpp duñ xool nan la leen di loolu moo indi lii. moo mhm. ne ko nag comme dañu nekk ci fin d'année nañ xool ban premier groupe la ñuy njëkk a jël mooy entre vingt cinq et cinq jeunes lutteurs bien formés euh, avec un, un expert qui est là ki leen qui leen formé ñu xool nan lañ leen di insérer dans le cadre de la convention état employeur pour que ñoom ñëpp kenn ku nekk mën a am indemnité mensuelle revenu boo xamante ne nii tey bu weer dee ni nga ko mën a yóbbu sa kër te du la yàqal ci sa ay activité sportive dara. du la mën a tere dem entraîner du la mën a tere am ay combat donc du la tere mën a dem say combat du la mën a tere entraîner du la mën a tere ak nekk ci activités yi nga war a nekk l' essentiel mooy en tant que entreprise bu la insérer heure bu la soxlaa ci dispositif bi da nga ko wuyu da ko liggéeyal li nga bëgg mu liggéey nga bëgg mu liggéeyal ma ne ko nag comme pour année bii di ñëw ñu ngi voté budget bi pour 2022 engagement bi ñu ci jël mooy képp koo formeeti rek ñu jëm ko insérer dans le cadre de la convention même si c'est pour 12 mois donc loolu mooy engagement bi nga xamante ni jël nañ ndax nit mën nga ko engage mu dem ba ci biir demal boppam nit mën nga ko engage mu dem ba ci biir kenn gis ko ni ko yow kat dama jël def la sama garde corps rapproché jël la signé le contrat à durée indéterminée donc loolu lépp dafa dépendre ci wërsëgu nit ki mais ñun liñ ci mën a toll ci engagement ak lañu ci mën a def mooy comme fixé nañ ñu un objectif de vingt mille emplois xam nga vingt mille emplois dafa bari mais vingt mille emplois jël ci mille lutteurs warul doon dara parce que lutteurs yi aussi ay citoyens sénégalais lañ kon boo ko xoolee ci logique boobu wala nga xoolee ko ci dynamique boobu mën nañ ni mën nañ fi signer pacte boo xamante ni nii képp ku ngeen formé ti mu nekk un lutteur connu ñu xamee ko ci lu baax parce que aussi nit ki aussi boo koy jël da nga koy jël par employabilité am te employabilité dafa am lu ci am solo mooy jikko ku jikkoo mu rafetul même bu mënee liggéey tamit doo nekk ak moom compétence da cee bokk ci compétence nit ki am ay valeur nit ki neex nekkal parce que ku neexul nekkal même bu mënee métier am da nga koy libéré mu dem te je pense que loolu comme daf cee am solo te d'ailleurs je pense que ci lim leen jàngal moom wax na ko dimension comportement boobu dimension valeur yooyu dimension morale dimension éthique yooyu yëpp dugg na ci biir moo je pense que loolu boo ko ci boolee rek day gën facilité faciliter insertion bi. Mm-hmm. parce que xam nañ ñi ñi ñuy jël nii du ëllëg ñoom ñooy génn di sànni xeer du ëllëg ñoom ñooy génn di taxawaalu du ëllëg ñoom ñooy génn di taal place yi jàmbur. te ñun yaakaar naa ne duñ nervi te yaakaar naa ne liñ bëgg ci réew mi ñun ñëpp mooy jàmmi réew mi ndax kenn du nekk ci gaal bëgg gaal gi suux képp ku nekk ci biir réew mi boo sañoon réew mi day am jàmm ak salaam nga am jàmm ak salaam parce que olof Njaay nee na ay du yam ci bopp borom te comme ay du yam ci bopp borom donc nu n'avons qu'à cultiver la paix et pour cultiver la paix il faut avoir l'esprit de non violence mooy lépp loo xamante ni mën na indi violence rek nga sori ko moytu ko ndax loolu mooy li gën ci yow mooy gën sa njaboot gën ci réew mi kon je pense que loolu mooy message bi ñu war a véhiculer tey presse bi jàllale ko mooy ñun au niveau de la direction de l'emploi nous avons pris l'initiative dans le cadre du programme d'urgence dans le cadre du programme xëyu ndaw ñi de faire de telle sorte qu'à partir de 2022 tous les jeunes qui seront recrutés les jeunes lutteurs qui seront formés recrutés d'abord formés qu'on ait la possibilité de les insérer dans le cadre de la convention État employeur pour renforcer leur employabilité, pour permettre à ce que ñu am le, les revenus qu'il faut pour pouvoir au moins garder cette, euh, cette euh, sportivité. maanaam le fait que nous donnons des sportifs, nekk ay combattant mais aussi du tere du am lu ñu yóbbu seen kër nga xamante ni tranquillement dinañ mën a indi utiliser seen ay compétences mu même demain pour indil Sénégal réew mi ay diplôme n'est-ce pas c'est ça et ça c'est important parce que aussi nit ki bu xalam dalee nit ki bu xelam dalee bu tëddee nelaw je pense que bu doonee sportif jaar fi mu war a jaar lu ne mën na ko apporter boppam lu ne mën na ko apporter njabootam mais lu ne aussi mën na ko apporter réew parce que souvent ci dimension sport nit ñi dañuy fàtte dimension réew ndax sport dafa nekk loo xam dafa mondial dafa mondial te tey boo nee boo nee euh, Moustapha Gueye numéro 2. mu ni trois fois champion d'Afrique mais kooku xam nga Sénégal la liggéeyal. kon kooku Sénégal la liggéeyal te loolu pour nga man koo am pour mu mën a nekk ci yow il faut nga am esprit ak dal gi nga xamante ni nii war nga koo mën a am tëdd tranquille di sport tranquillement nekk sa kër tranquillement benn pression du am ci yow nga xamante ni les questions sociales ne serait que gestion sociale famille bi nga mën koo régler par rapport ak li ngay am feneen donc kon initiative boobu mooy initiative bi ñu jël allons accompagner l' entreprise RNB Sécurité dans le cadre de la CNE pour leur permettre chaque année d'insérer les jeunes qui seront formés et qui auront leur diplôme, ne serait-ce que pour une durée de 12 mois. nous avons pris cet engagement et nous allons vous accompagner pour cela. Donc merci encore pour l'initiative, nous sommes très satisfaits de cette convention. Nous sommes contents aussi du fait que aujourd'hui la formation qu'on donne à ces lutteurs-là donc permet non seulement de contribuer à l'apaisement du pays, mais ça permet aussi de sécuriser les familles qui ont besoin de sécurité. Et ça c'est important parce que nit ki aussi man tey ma jox exemple li may wax ni nag beneen kii la parenthèse mais bi ma defee meeting boobu yow yaa ngi fa yaa wu jaan voilà bi ma defee meeting boobu pare benn waaye dafa ma woo ni ma jógal ci sa bopp. foo foo jëm ànd la garde corps parce que on sait jamais ku nekk mën na laa kar def la naka sudul noonu kon encore une fois loolu moo tax moo wax loolu c'est important les gens ont besoin de vous ils ont besoin de ces qualifications de ces compétences que vous avez mais yéen aussi préserver leen loolu fu ngeen mën a dem ëllëg ak lu ngeen mën a liggéey bu ngeen fa demee jikko ak valeur yi nga xamante ni moom lañ leen former jikko ak valeur yi nga xam moom lañ leen durant la formation ngeen fexe ba loolu mu mënul yokk du wàññeeku kon donc li moo nekkoon kàddu encore une fois merci merci beaucoup nous sommes très contents et nous sommes satisfaits waaw